فتغتسل كل عن الملامين خدمت سيد البراء يا أمنا والأنبياء والأنبياء من همنا قد الصلاة والسلام أبدا لهم كما زيد من لم يهدى إلى النبي والصلاة والسلام والأنبياء kau ah. xam bëgg mu si waat ko bëgg mu si waat xam bëgg ngeen mel ni comme ni ko sëriñ bi waxee mburoog soow lii ngay bind yaasin ngay bind ba ci aaxiri wa jaa bin aqsa madinati rajulun yes an nga taxaw nga bind kazalika fulaan diw doomi diw ila fulaan bint fulaan ku jigéen ka yabal nga ku góor ki ci ku jigéen ka nga xam ne jëkkëram dafa dem mu bëgg mu dellusiwaat kallam البرخي القاتف والريخي آسف ندف بسم الله الرحمن الرحيم قال إفريت من الجن أنا آتك بي قبل أن تقوم من مقامك إني عليه لقوي آمن قال الذي هنده علم الكتاب في في علم الكتاب في في سوري fa jamaxnaahum yaati diw ku ki dem yaati diw sëy yaati sëy sëy fulaan ibnu fulaan illaa fulaan bintu fulaanatin ku jigéen ki na ko fekki kallam xil basar wa nufixa fi sóori fa jamaxnaahum jamhan allahumma yaa jaamiu aadama wa xawaa Alaihim assalam wa fatimatu alaiha salam ajma bayni anna fulan bintu fulanatin ma fulan ibnu fulan gis nga ko bil khairi wal mahabba Bismillahirrahmanirrahim rabbana innaka jami'un nas li yawmin li dal boko binde serigne bi ko dem day delsi ko bëgg jubal da ni jubo sen digënté mburok sow ken munu ci dara dara dara dara ken munu ko ci kay bay ko bëgg jubal ko bëgg wacc ku dem da ngeen ni juba par force force fu dok soow ndox ak jën non ngeen ni mel ku dem kuli koro boko woje mu del wat bindal ben tak sa buntu neeg bi bind ben tak sa ndig wala ngay rayu day del wat say bo guddee nak bo jullege ba pare nga def ñaari raka bo pare nak nga jang allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ali muhammad 133 jang ñaan day del wat ka kadem day del ci wat da ngeen ya, di jowo ya. wa yasin ba yas a nga yam waaw ah, wa jaa amina samadi rajulun yas ha fa nga yam kazalika fulan ibnu fulanat yim bini ni gis nga ni ngay binde ñaan gi tak sa buntu nek wala nga def ko ci wolis bi wala ci armar bi wala fa muy njegenu day del ci wat bu demon kuli koro day del ci wat xel du tok fofu tank ñewul ci nek bi du am jam paré nañ fofu ñu dem fi alam nasara ngay def bo jàngee alam nasara ñent yoon nga jang ñaan gi ben yoon allahumma asrax sadri awladi adama banati hawa nga jang alam nasara 10 jangat ko bo jang nak 300 alam nasara yi kurus gi ni seede bo ag nga jang ñaan gi ben yoon seede bo ag nga jang ñaan gi ben yoon seede bo ag nga jang ñaan gi yoon ben yoon non nga koy def ba alam nasara jeex defar rek seede boo àgg rek jàngal ñaan gi benn yoon doomu aadama yi no defar rek nga xool ni ngay mel ci doomu aadama yi barki rasulaay seen xol day ubbiku ci yow seen xob seen xol day ubbiku toog ci nag da nga ciy toog di ko liggéey toog ci lépp luñ la jox na nga ko riyaade une semaine nga xool riyaade ko une semaine di ko coog kocc koccal man léeg-léeg ma yor fi dara fii jële ko fii naa ko kocca koccal une semaine gisuma ma demaat ma ne xaaral ma def quatorze jours gis nga boo jub quatorze bi day daajiku léeg-léeg sax dalay dag dal si càngat ñu ne la càngat gi de boo ko sangoo une semaine da ngay ubbeeku ngay sangu ba samedi jot yaa ngi commencé leen di mardi mercredi jeudi gisoo dara dara yëngatuwul vendredi samedi xanaa dafa war a mët deux jours moo ci des mu mët dara yëngatuwul dollil ndox te continuer beneen dimanche bee di ñëw balaa ngay jub dimanche boobu boo continuer càngat balaa dimanche boobu affaire bi dajji ko waaw lay jox càngat ne la une semaine la nga tàmbali dimanche samedi bee la war a nekk la war a mët nga ubbeeku nga nga ñëw àjjuma dara doxut continuer samedi indil dimanche ba demal demal ba mu am balaa ngay jub beneen samedi ba mu bunt bi dajji ko wirdi tamit noonu la léeg ñu ne la riyaada ko une semaine ngay dawal une semaine gisoo yokkal continuer bul bàyyi bul bàyyi bul bàyyi boo demee nag ba am arba mën ngaa taxaw waaw boo demee baa am ba mun ngaa taxaw waaye yow nga def trois jours quatre doxul nga bàyyi sangat bi def trois jours doxul nga bàyyi sangat bi doo dem doo dem te booy càng booy booy wirde da ngay xool bu ngay wirde nii ñu jox la tur wala càngat ngay wirde ngay wirde yaa ngi wirde def nga sa wirde ba pare da ngay génn xool sa digganteeg doomu aadama yi <laughs> ndax li ngay wirde mi ngi yëngatu wala yëngatuwul léeg ñu jox la tur nga koy wirde sa jabar fay waaw dañ lay jox tur nga koy wirde sa jabar fay sa jabar jël bagaasam dem ah? waaw Serigne ah, ah, Assane xam ne li may wax da ngay jox tur nga koy wirde sa jabar dem waaw sa kër yëngatu <laughs> yow la rek décider nga xool am na ismu ismu yoo xam ne bu ñuy ñëw dañuy defi dégâts waa ji dama benn mu ne mu ne machine état bu xasee ba commencé di daw day def ay dégâts machine état mu ne machine état buy daw du xool ki ci bokk ci bokkul ay dégâts lay def voilà moo tax bugguñu machine bi départ na fi yem rek ñëpp génn ci kaso yi jàmm ah moo tax buy daw nii day def ay dégâts ma de dama demoon jënd fonde man ne dama demoon lii sa nekku ci dégâts yi la kay da ngay wirlu tur sa jabar jël bagaasam dem wala kër gi commencé yëngatu wax kay yow ngay yëngal kër gi yow sax yaa yëngal kër gi yow da ngay jékki-jékki di dóor gone di jaxase madame lu la madame wax nga mer tur bàyyi ñëw te ismu bu buy ñëw day defi effet li xale yi naan day def effet day def effet lépp lu négatif sa tour sa sa sa alentour da koy dégager lépp lu negatif da koy dégager mu tax ñu naan la lalal sa néeg génnee fa luy mel ni ay photo ak ay nunus ak ay këcën këcën fi ngay jaamoo yàlla darab rek doy na fa sa andu su ndaw ngay def say ciuray tak say galaj motax mag ñi beru hala way tak ay photo def ay ki yek yu kenn xamut ay football kat ak li ngay wo du ñew ay poupée li ngay wo du ñew kay ndax buy ñew day def yi dega waaw mën na la def sax ap wop sa yaram bi tang jeur nga teud sa bop bi dis gan billahi dagg khatim, xaatim khatim xaatim ba mu melni sama ndalu bopp bi lañuy teggi man dal melni ñaar ay nitam tim dal bëgg ni teggi sama ndalu bopp bi la ilaha illallah wa rasul khatim ah! bo do na ko laal la illa amna lima doon wut de waaye ay kero jeulna mo dal legi tempo tempo di gambe nan tempo tempo tempo tempo léeg nga dag dara wala nga sango dara mu yëngal da ngay teud léeg ñu señ bi def fan yi yaram bi dafa sutante waw yaram yi day sutante parce que day wo ño xamantene mom señ bi bu ñuy ñëw dañuy def dega wa kay ba tax lépp luñ la jox bokoy da ngay xol sa environnement bi nga nek ngay wër dala di xuloog sa patron di xuloog sa jabar di door say dom wala nga jël sa bagage dem sa yoon doto tok ci kër gi doto bëgg sa njabot lasaraar daa métti lasaraar daa métti lasaraar daa métti man de du du ma maa def sama choix maa bëgg a nekk sëriñ li fi nekk ci li li yow yaa def sa choix ñaata métier fi ne enseignant am na chauffeur am na nga ne enseignant nga assume les conséquences yaa bëgg a nekk juge assume le juge bi woo Sidi kii di Seydou Seydou Seydou yaa def ce soir ah, ñaata sëriñ la seen ja gis nga sëriñ yoo xam ne bàyyi nañ ay fukki jabar barki sëñ Tuubaa bàyyi nañ ay fukki jabar am na sëriñ yoo xam ne bàyyi diw ànd naa moom lii moom laa jural diw diw wàcc naa ko te du la wax nag lu mu tax ñuy tàggoo waaw lasaraar moo kéemaane lu doy waar la lu doy waar la léeg nga dugg ci lasara du feebar di feebar rek kenn xamul feebar bi fu mu jógee ngay faju rek fu ne nga dem fa mais boo boo tanee rek am jàmm chaque chose à son prix fii du hôtel fii nii àdduna du hôtel lépp looy sàkku rek am na ay effet négatif léegi nag pareel pour dékku ko waaw waaw waaw am na kuy laal cent vingt sept cent vingt cent vingt quatre mille salallaahu ala muhammad këram tas jabaram dem mu ñëw si sëriñ bi wax ko sëriñ bi ne ko wëlbati ko def ko istixfaar mu def ko istixfaar affaire yu normal seet loo gis soo loo gis seetu moo tax des fois dañuy wax ne ki la jiiti si néeg bi moo wax fi ngay toog voilà suñ lay wax demal siyaare ab sëriñ wala demal di demal waxtaan ak ab ak imaam imaam bi soo toog ak moom chaque jour ma wax ko nu ñuy jullee la lay wax nu ñuy naafila nooy defaree julli bu yàggee nga fees ah bu dee sëriñ lasaraar bi foo leen toogee du la wax Sénégal mooy jouer Côte d'Ivoire wala Coupe d'Afrique bi ko ko gagné lu mu lay wax lasaraar la lay wax ay aay bi ab saar bi doo fa toog te jëloo dara moo tax soo nekkee si monde bi ngay fréquenté mag ñi di leen yóbbul addiya waaw man sëriñ bay Ndiaye toog naa moom ay dama daan xëy suba sax ne tiir du ma wax tàggu kenn dem toog Serigne Mbaye Ndiaye ñuy waxtaan mais bu ma fay jógee dama naan noonoo man damay kontaan parce que dama xam ne tey sama sama dimanche bi perte ma ko quoi dama sama xol day sedd waaw parce que damay xam ne que tey ndekete man maa ngi gis lii. ci na seedu fii lu yow lii lu fi nit gis dañ ko ko joxañ baaraam si si duñu walewu duñu xutba samaan du ñu lijja baawut duñ fi julli fi kenn julliwut fii loo fi mën dañ la ko wan dañ dañ laa tett teg ci sa loxo te da nga koy gis nii mais doo gis mais ñoom na xoolal dan laa ilaha mbay njaay day ubbi mën a xas bu na man lii chaque jour ma ramu ko moo la jiitu ci néeg bi moo lay wax fooy toog sëñ Babacar Mbay dem seeti ko jox ko adiya nga ko man de basmala laa bëgg basmala laa bëgg liggéey mu wax la ni fi ngay jaar ak nu ngay pe waaw bii waaw sëriñ moo metti sëriñ du baale sooni du soirée sëriñ du fonante sëriñ du dem géej du dem piscine sëriñ moom daal sëriñ moom daal moom dafa metti sëriñ la <laughs> léegi nag yooyu ngay sàmmoonteel noonu nag ah di yar sa bopp moo lay yéege yooyu ngay sàmmante noonu moo lay yéege loolu moo fi nekk yàlla ñu yàlla defal sutura yàlla sàmmuñu def jàmm ci réew mi ñëpp génn kaso yi ay waxi xeex ak le combat ñu teg ko ne la ñun amuñu combat benn combat la le maire gañ ñu dem Sénégal yemu fi tey waxoon naa ko fi bee passé bàyyi nañ ñu bëri yàlla nañ waat ñu ci def ñëpp ñu dem élection la maire gañ asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu jërëjëf